mbokki jullit yi yéen a ko doon laaj ak Sénat waa Xelcom xéwal kër googu nga xam ne nee naa boo fa duggee ak njàqare sooy génn mbégte ngay àndal ñuy yëngu ci wàllum ñaan wàllum seet waaye it nee naa la gaaw ci góor gu tële maanaam impuissance ak nga am ndoxu siti mën nañ jox ay garab yoo xamante ne ni boo ko sangoo ay fan rek di nga wér peleng waaye it seen saabu yooyu nga xamante ne ni moo gaaw ci cet ak làmmiñ ak ubbeeku ma del si ak seen bàgg yooyu nga xamante ne ni bàgg magique laa ko tuddee boo ko takkee cet du la topp te foo fëgg dinañ la ubbil maanaam ci wàllu liggéey kon mbokk yi benn adresse rek la muy Xelcom Xewël ak équipe bu xarañ boobu ngeen mën leen a jot ci numéro yi 77 913 86 wala 77 861 53 25 waa Xelcom xewal ñu leen may seen émission Serigne Touba ak koor aouzu billahi min ashaytani rajim bismillahi arrahmani arrahim wassalatu wassalaam ala ashrafi almursalin سيدنا محمد الأمين يا خير ضيف أتى بالبسر والمدد أهلا وسهلا وترعيبا بلا عدد mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu moo ngi leen di ziyaara bu baax te di leen ndokkeel ci weer wi seen émission si Amadou Bamba Khadimu Rasul ak weeru koor seen mbokk Seydina Omar Achadul Khadim di leen ko defal ci seen télévision BCM News mu mel ni ñu ngi woon ci euh, fas yéene waxtaan ak yéen wérdul maqouz minallahi bi waasitati rasul ci épisode 9 euh, mu mel ni xam ngeen ne wérde wi ca gànnaar la ko sallallahu alayhi wa sallam joxe sëriñ bi ci ndigalul yàlla ci njàppandalu borom bi subhanahu wa taala wérdu woowu sëriñ bi nee na bi waasitati rasul alayhi salaatu wasalaam yaqasatan laa manaa man señ bi daa wax ne bi ma ko yonent bi jox dama ko gis mu baasaratan bët ak bët ñu saafante ci ay loxo ci lu may gént di nelaw ma gis ko nga gis ne señ bi nee na nelawut ba gént gis yonent bi mu ko jox ko wér di waaye mu baasaratan la ko gis yaqasatan laa manaama wér di woowee nag sëriñ bi bi mu ñëwee daa woo mag ñi aju woon ci moom gànnaa ne leen képp koo xamante ni aju nga ci man te yoroon wen weneen wér di wudul wér dul maquus sëriñ bi nee na boo mana boole ñaari wér di yéen ya, ko jël ndax lu baax du doy sëñ tubaa ko fonk woon lu baax la ba daawul wax ne ah waccal lee te jàppal lii sëñ bi lépp la bëggoon nit ki bëgg ko maanaam nit ki màng ko ci dajale ko ngir yiwam gën a bari ëllëg moo tax sëñ bi dañ leen teg ne ku ci yor mais weneen wird te man koo boole boole leen waaye da caa tegoon bi sart képp koo xam ne yor nga weneen wird te mënoo koo boole sama wird wi bàyyil wird yooyee te jàpp sama wird wi ndax moom dafa dajale xeeti wird yépp ci ay ndam noon la ma ko yàlla joxe teg ca daal ne saadatan laa saqaawatan baxdaha nga xam ne wirdul maqus min allahi bi wasitati rasul ki koy wird te aju ci sëriñ bi te jëfandikoo sart yi ak ni ko sëñ bi tënkee sëñ bi nee na saxaadatan dafay texe laa saxaawatan bax daxaa texee di dootul topp ca texe googu mu texe nga xam ne day texe texe gu sax dàq te du texe di képp ku jël wérde wi kon mu mel ni yow yaa ngi ci mën a dégg yow mi aju ci sëriñ bi daanee ne wi sëñ bi dala koo jox ci ne la yàlla moo ko ci defal euh, sart yi wérde wi nag am na ay sart am na nuñ koy limee insha allahu rabbal alamin dañuy ànd ak yéen ba tey ci leeral leen nag tënk yooyee nga xam ne noonu la ñu war a tënkee wérde wi noonu lañ ko war a jàppe te noonu la wérde wi war a doxee nga xam ne sëriñ bi lu muy tàmbalee da koy tàmbalee aouzu billahi mina shaytaani rajim kon aouzu billahi mina shaytaani rajim moom la sëriñ bi tàmbalee ay waxam Euh, ci tàmbalikaayu boo xamante ne nii mooy wérdu wi ko borom bi jox kon li ñu leen di xamal rek mooy insha allahu rabbul alamin dañuy dugg ak ci seen épisode 10 ci leeral leen nag ci biir wérdu wi nañu ko nit ki war a defee ba daje ngërëmi sëriñ bi ni ñu ko ko tënkalee wa axul daxwaana an alhamdulilahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu